dal leen ak jàmm mbokku internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne jox leen ay xibaar waxoon naa leen info bu beesee rek si concernant Lamine Yamal ak papam bi xam ne dañ ko jam

donc donc mo mo ngi sante actuellement mo ngi am tan bu baax donc lolou pour man c'est un excellent nouvelle bu xam man ñu ko jox yeen sama interne ñi mbokk yi du côté de Marseille on dit que Balerdi moy nek capitaine bu Marseille l'année dernière c'était donc kon donc bi am mois donné des rongiers dafa blessé et tout donc ba ci même ba wa Marseille def na lu ñaaw man supporter Marseille la nanguma ko ben boy bo xamantene dafa souhaiter eh, ki dafa wax si si même ba joyeux anniversaire yu mel nous sanctionné parce que dafa cousin joyeux anniversaire dañu jàkk day roubi quoi par rapport ak li xew altercation entre même ak entraîneur en tout cas quoi du côté de Marseille euh, donc bi donc ak di euh, Reims bu donc ñu sur le dossier pour un prêt xam nga ñoom Reims li tax ko Marseille Marseille option d'achat alors que wax prêt c'est comme. li leen dal si Saliba Saliba dafa ñëw Marseille du option décembre bu dellu Arsenal jëriñoo ñu ko amul leen bañ njëriñ waa Arsenal ñoo si gagné donc waa Marseille loolu ñu doon bañ moo tax ñu bàyyi dossier bi mais nag ñu ne Mukako du côté de Reims euh, donc ça va s'accélérer Fofana euh, est menacé proche d'un accord Fofana bi nekk du côté de Monaco maa lañ koon wax ni Lamine Camara à 1100 yi mu joué et gis nañ deux premiers matchs am dafa titulaire que ça soit contre Genoa contre Barça bi bu mu dugal selon taskat bi euh, donc foofu na en direction de Milan c'est presque fait donc d'ici fin de semaine normalement war nañu finaliser lépp mu dem di côté de Milan def son euh, dem doon visite médicale et signé son contrat avec Milan AC mbokk yi Mbappé def na benn post sànq nii su compte Instagram moom xam nee na mo ngi espérer euh, jël yeneen trophée nee na premier match premier but neex na premier trophée mais muy ñaan mu nekk buntu pour yeneen trophée yu bëri ñëw dans l' équipe le plus grand du monde muy Real Madrid sono Kylian Mbappé si benn post Instagram mbokk yi du côté de Espagne mën nañu fa nengu na l'anglais donc day dem fan day dem du côté de du côté de Atlético de Madrid pour dire que ne bon si dossier bi may ñëw après prochainement ce sera euh, kii di suñu gaynde bii di Mikel Ngor Faye bon on va voir ah on va voir l'anglais bu bu demee ndax Mikel Ngor Faye dina changer ak vidéo dinañ ci ñëw léegi benn vidéo léegi laa leen defal léegi. gars yi comme ni mu ko waxee on va parler de Mikel Ngor Faye du côté de l'Inter de Milan comme ni ma ko waxee comme l'anglais ak kii euh, di Atlético de Madrid am nañu euh, accord et que Mikel Ngor Faye dans la hiérarchie des défenseurs du côté de euh, Barcelone position loolu man franchement mënuma ko gëm. Euh, même si vous comptez défenseur, mais vous comptez l'anglais, ça veut dire que c'est une place. Maintenant, Inter de Milan s'intéresse à notre joueur Mikel Ngourfay. Est-ce que vous avez ou vous Je pense que je sais, c'est euh, en termes de salaire, salaire donc voilà, donc Inter En termes de liquidité, je entre 17, 18 et 20 millions d'euros. Inter, ce ne sera pas un problème pour euh, Inter de Maintenant, le club français, je ne pense pas a déboursé 20 millions pour un jeune défenseur pour joueur le haut niveau, même si international sénégalais et tout, euh, c'est un joueur petit de temps, très prometteur. Mais on parle quand même de 20, 20 millions, bien maintenant. Waouh, waouh, waouh, pour 6 millions de sur la table. Les Inter, actuellement, on sait que Inter, c'est une équipe type mon l'air. Donc, on a vu Inzaghi, euh, si match amicaux, ils disent une défenseur limité, match, et même l'année dernière, ça veut dire qu'il y a une équipe, mais il est beaucoup dans la rotation dans la roquette parfois nga joué Coupe d'Italie un match blessure bu amee man nga dugg et euh, man c'est polyvalence man la permettre nga jouer gauche euh, latéral gauche man le la nga joué axe man l'équipe française lenn moom si neex que ça soit Nice Todibo dafa dem du côté de West Ham ça veut dire que soxla défenseur boo fa nga am temps de jeu que ça soit Rennes aussi dañoo soxla un défenseur donc foo dem foofu dañuy joué et même lance bi xamante ñu ngi jaay Danso du côté de Atlanta c'est des équipes yoo xamante ne France nekk di nga am temps de jeu et pour me ben prêt mën na baax nga décoller sa carrière après pourquoi pas defaat ce combat du côté de Barcelone comme Saliba ko Marseille Arsenal Marseille Marseille Arsenal actuellement il est indiscutable Arsenal et même en, équipe de France donc lii laa mën de manière générale sur le choix Inter ça peut être intéressant mais on va voir bu lan la suñu décider euh, concernant avenir on va parler aussi tamit de Fodibel Touré bi xamante ne Saint-Étienne daf ko bëgg Fodibel Touré yaa ngi am ay club yu bëri di dàq club yu bëri en terme de salaire gars yi ne li muy laaj dafa bëri donc Fodibel Touré t'as besoin xale bu ndaw nga xam nga donc amoo 28 sax ay 25 26 ans yi boo si nekkee ça t'as besoin de temps de jeu xam nga championnat France pourquoi pas dem foofu jouer ma gis ne seetaan naa le match Villarreal contre Saint-Étienne mais Saint-Étienne équipe la am et l'année dernière aussi gis nañ face à Metz aussi lu lu lu baax lañ fa ne boo wàjj sax mooy fa mais donc toog am na ay club yu la laaj nga naan bii laa bëgg championship am bu fi ñëw mu ne des na la doy turki laaj nga nga bañ am na équipe Serie bu la laaj nga bañ bañ bañ yu bëri yooyu bu yàqee bu yàggee saison bi léegi jot week-end prochain la Sam Naffan di débuté donc nekk nga club bu xamante ne Ibrahimovic dafa toog ñëpp di ko dégg xam mu wax ne man kii bokkul sama plan yow ak Origi di yóbbu si booy yow yaay xam sa bopp nag même si nag bon man nga jël sa temps xool la ban club moo gën a baax pour la suite de si sa carrière attention man xaw ma lépp nekkuma sur le secret yëpp mais pour man ci li ma nemmeeku may côté bi mu dooree ba tey y' a beaucoup d'équipes yu laaj Paul Iba Touré et dafa gol choix te saison bi mooy commencé quoi et moom équipe bi nga bëgg c'est ñëw na septembre la donc loolu yëpp aussi tamit c'est a à revoir concernant Paul Iba Touré en tout cas seen teñ baax équipe bu baax la pour yàlla Chaudron bu bu Saint-Étienne euh, donc euh, voilà c'est quelque chose Jean Fouad Guissard xam nga donc euh, voilà di nga joué ay début Olympique Lyonnais Saint-Étienne match yu neex la et même pour revenir en France décoller waat sa carrière pour man lu baax quoi moi na nekk lu intéressant Jude Bellingham Jude Bellingham fantastique Jude Bellingham le joueur qui ressemble plus à Zinedine Zidane par son élégance maintenant nag nekkatul élégance dans l'agressivité xam nga Bellingham kee laa ko jox cër Sénégal bu mu dee euh, bu mu dee Angleterre waaw Bellingham nga naan sant tout le monde Sénégal football dañoo bëgg a ñëw rek tag joueur waaye bés boobu ni mu def naa bés ma dëkk parti donc si laa respecté Jude Bellingham ba tey encore une fois tey mais il est extraordinaire on dit que le ballon d'or pour moom la man dama commencé hésité moom ak Vinicius ballon d'or bi quoi xam dama yéene Vinicius ballon d'or bi d'un côté mais force de constater que non Bellingham <laughs> nag instant ndaanaan la quoi non Bellingham mën na football. kurus dem na de waaye waare yaa jarul ngeen di jooy kurus quoi kii Bellingham mi kii tàng de allahu akbar kii ma war a fubal <laughs> mbokk yi tey la ñu à suivre de Strasbourg c'est un jour bu xam ne gars yi bàyyi leen ko xel bu baax a baax je pense que ngeen que si coupe du monde U17 mooy équipe ñoom Amara Diouf ak ñooñu mais il était excellent c'est pas pour rien waa Chelsea jënd ko waa Chelsea nag ñoom moom ci Strasbourg c'est la même chose mais un jour capable de jouer euh, donc euh, transversal, passe court, passe long, passe qui casse les lignes, jouer dans l'enthousiasme, mener jouer box-box, offensivement parlant, qui peut apporter une frappe de balle un joueur à suivre. Et là, le football xam nga tax mu gaaw champion en championnat France as la visibilité Si tu defee performance au Sénégal day yomb parce que nous, jël comparer par rapport ak ñi Sénégal et ce sera vite fait Et nous comparons, parce que le Sénégal, est aussi champ de football xam nga donc Aliou aussi lu mu dëgër bopp dëgër bopp boo tojee maanaam boo tojee ñëpp teg si seen bët pour ñun Sénégal lay yomb c'est un joueur à suivre si match amicaux yi dugal na benn but. man booy bu ma neex la parce que élégance bu muy bu muy football voilà il est différent nag de profil yi ñu fi yooyu yëpp ay Pape Demba Diop gis naa mu prolongé Demb si équipe am en deuxième division donc ak yeneen joueurs ñu am Habib Diarra nduróol ak moom nduróol ak Gana nduróol ak Pape Matar nduróol ak suñu joueurs nduróol ak ñoom profil c'est un autre profil te ma loolu damay neex dañuy wax ne football groupe bu homogène dafa baax nga am profil box box profil numéro 6 euh, profil Nampalys Mendy c'est un joueur bu xamante ne voilà différent de ñi nga am profil dans la récupération profil offensif comme par Matar Sarr différent profil Pape Amadou bii nag c'est un profil différent donc c'est un lion à suivre en tout cas man sàmm naa France bi nga xamante ne man dama koy suivre bu baax booy bi dama koy bàyyi xel dama koy bàyyi xel te jàpp naa ne na def saison bu excellente loolu laa koy ñaanal sax de manière générale donc mbokk yi li mu nekkoon vidéo yi mu leen bëggoon jox ci commentaire am leen bàyyi ngeen wax seen xaar ak seen gis-gis ma jaajëfal leen wax leen ba beneen su seen football TV.